dégg daal di gëm mbokku déglukat yi alaykum wa rahmatullah rafetlu sen Radio ak radio joko FM xam ngeen ko nak dimanche bu jot ah, sen ah, émission bi nga xam mom modi ah, jakarlo politique ci xukay bi Moussa Pouy Assane Diour mo ñu fétel ci xarala gi di rafetlu sen and ak Radio Joko FM tay nak ñu am gan comme niñu tam diko di rek dimanche bu jot am ku ñuy dalal ci walu politique bi la yon suñu gan moy gay Abou Ahmed Seck mom mi nga xam jamono bi modi di parce que présentation casquette politique bi moy jitu coordinateur kurel ki nga xam moom moo di APR ca Bargny ah, ba noppi doon jiite sax le comité électoral ba nga xam ne moom la ñu fa sampoon ah, rawatina itam nekk maire de Bargny ah, nekk itam directeur de cabinet bu ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu napp ak koomu géej su fekkee ne nag la ñu wax. Euh, jubul mbaa mu des monsieur le maire ñu ngi laa nuyu lu manké ci présentation bi. jërëjëf Moussa ma ngi lay fay di nuyu euh, ñëpp ñi ñuy déglu dëkk ci département bi di nuyu également et particulièrement wa Bargny. Euh, foo naa nañu xamante la présentation donc est parfaite. voilà kon monsieur le maire euh, ñu rafetlu ce euh, ñëw tey wuyu si ñu Assane Diouf def naa yi itam bokk na ci li nga xam ne ñun sopp nañu ko kilifa yi ñoom di bàyyi les léeg seen i yitte ñëw wuyu see ñu ba noppi askan bi mën leen a déglu sax itam bu leen fàtte yéen ñi nga xam ne ngeen numéro bi ci whatsapp bi seen laaj ak tontu itam des na ko nam def fii mu 77 608 12 15 dugg leen foofee itam ngeen def seeni laaj su ngeen nekk également ci Facebook ah, xam ngeen ko ah, ci rajo Jokko FM foofe ngeen di dugg itam ah, fekk fa la nga xam ne moom moo di daanaka seen laaj ak tontu Assane Ndiour dana ko relayer ja jox la ñu ne nag ànd ak yar ak teggin loolu moom def naa dañuy fàttali rek ndax xam nañu ne moom ngeen baaxoo monsieur le maire ñu ngi rafetlu sa ñëw fi nga xam ne moom moo di émission jàkkaarloo politique ñu leen di wax également yéen ñi nga xam ne yéenay nekk ci nguur gi jamono bi ndam effectivement nous ngi eu ci élection présidentielle pour xamee ni euh, bu am déterminant pour avenir du Sénégal euh, ñu dugg ci parrainage avec ak jàmm ku nekk dem ci euh, population pour ñu porter sa candidature et cinq candidats génn malgré que ngeen xob bi. xob bi wuñu kenn parce que it nañu waxante dëgg rek bu fekkee ni yow da nga bëgg dem Sénégal solliciter 6 millions de suffrages.

pour mu mën a wér leer da ngay am temps pour jàngat li nga xam ne moom lañ la soumettre imaginel tey bu fekkoon ne dañoo amoon quarante sept candidats yoo xam ne dañuy jaar di présenter seen ay programme kenn dootuñ comprendre. dara gis nañ le problème fële ci Nigeria. tout simplement moo tax ma jàpp ni nit yi porter sa candidature euh, c'est tout simplement démocratique et très citoyen bi ñu duggee ci parrainage ku nekk dem nga wuti ay parrainage ñu jàpp ci cinq ñu def campagne boo xam ne rafet na lool bon am na ay quelques incidents mais globalement mën nañu rafetlu campagne bi fi am vote bi it ñëpp gis nañu ni mu demee de manière très transparente population yi jóg yeewu suba tel dem vote ji li ci génn gis nañ ko mooy suñu candidat le président Macky Sall au premier tour avec 58 pour cent ñu koy rafetlu di ko remercier moom parce que loolu it bilan am la benn ñaareel bi it campagne bi nga xam ne mën na ko muy une campagne extraordinaire population yi def seen choix en toute conscience ñu koy euh, remercier ci campagne bi di ko féliciter di ko ñaanal cinq ans yii ñëw yal na di yàlla def mu gën ci Sénégal. amin mu nekk nag loo xam ne dañ fay téyendi loxo ndax dañuy dellu siwaat euh, ci li nga xam ne moo jëm sax typiquement euh, ci résultat wu la aajowoo. Ah, ci ah, yi lay jongante eh, falu njiitum réewum Sénégal ah, dellu si waat rek ci ki nga xamne moy maire bi ci Bargny Abou sek yow yaay jité donc fa nga xamne mom modi maire yi bu Bargny 2014 date la de ci yow. effectivement 2014 mooy datu premier changement bi am Bargny. alternative ba. carrément alternance ba. et donc euh, population. xale xale xale xale mo mo teggi mak mi nga xamne ñëpp yaakaaroon ni ne guy la dootu fa jóg. lenn laa ci jàpp mooy c'est un travail d'équipe envie de changement profond boo xam ne waa Bargny ñoo ko exprimé en 2014 et loolu moo indi équipe municipale bi fi nekk tey. mu nekk loo xam ne également xawoon na jaaxalaate ndaxte euh, li nga xam ne c'est vrai mënatul sax ñu ñu nekkatul actualité waaye da nga da nga da ngeen da ngeen euh, booloo ci kuréel gu ñu duppee ALB ànd liggéey Bargny. Euh, ngeen dem ba fexe ba ndam li nga xam ne ñëpp moom lañ doon séntu euh, diggante euh, quatre vingt ba jamono yi nga xam ne ci la mbir mi di am ci 2014 ngeen jël mairie bi mais nga yor mairie boo xam ne boo seetloo ci biir kuréel ci biir conseil municipal bi da ngeen dajaloo mais ku nekk ak fa nga bokk loolu metti na jafe na jafe na yor ndaxte déggoo mën na fa bañ am. jafe na yor jafewul yor jafewul yor parce que choix waa Bargny la waa Bargny ñoom ñoo décidé ne dañoo bëgg parti yi nekk bennoo yépp ànd ak waa PDS ànd ak euh, waa réew mi ak des forces citoyennes ñu diriger Bargny et ñun choix boobu la ñu respecté et c'est vrai que spécificité la bu am Bargny dewuma Sénégal gi yépp mais xam naa ni doo gis fu bëri foo xam ne day liggéey ak parti socialiste di liggéey ak modèle di liggéey ak PR di liggéey AFP di liggéey PDS di liggéey ak réew mi loolu mooy spécificité euh, suñu conseil municipal et ça se passe très bien. ça ah se passe très bien effectivement opposition yi fa am opposition objective parce que loolu it lañ ci Le conseil ba nga xam wax sa xalaat en fonction de ay expérience en fonction de ay conviction mais yow di ngay ñëw conseil gis nga ne grosso modo ça se passe très bien ba tey la meilleure preuve moy équipe bobu mo départoon depuis 2014 et batay tey amul ben parti bu ci C'est lolou mën nga ko constater donc loolu dañ koy rafetlu. alors mu gis na également ci biir boobu conseil des fois également di ngeen dem yenn saay ngeen am euh, ay ay euh, ndaje yoo xam ne doo leen doo leen dajale ñëpp ba mu am renvoi def naa am na benn wala ñaari yoon. lu tax ben, benn yoon la am effectivement jour boobu mu amee d' ailleurs bon jour la boo xam ne y' avait beaucoup d' événements loolu euh, effectivement day am mais de manière globale conseil yi ñu tab bar ñi du ñëpp. mais la grande majorité ils sont conscients de leur responsabilité xam nga mandat yi boo ko sollicité ci ay nit. le minimum mooy nga teew fa ñuy waxtaanee avenir niiru Bargny

C'est ñak téway ci biir conseil municipal bi ak ñeneen sax ñoo xam limu ñu leen est-ce que du nekk gàllankoor ci liguey bi. ñom ñoo mëna répondre man lima xam moy nit bo les engagement publiquement devant la communauté de Bargny solliciter sen suffrage ne leen amna luma xam amna luma mën pour indil ko dëkk bi te teewoo fa ñu koy décider dama lay bàyyi sa conscience jotew leen du du dara loo leen diggaale ba tax ñoom ñu war a mën a euh, toog seen i kër presque gedd euh, conseil bi kenn du leen gis chaque fois dañuy noté absent mais Moussa assemblée nationale ñu fa nekk yëpp y a des partis d'opposition conseil municipaux yëpp yi am ci biir Sénégal ak partout dans le monde y a des partis d'opposition donc euh, bu fekkee ne yow opposant nga lu mu mënti doon mais conseil bi du sama conseil mhm. ay doomu Bargny ñoo jàkkaarloog Bargny ne leen dama bëgg nekk conseil municipal bu ma nekkee conseil municipal dina indi li ma xam sama mën-mën sama envie respecté wu ñu seen engagement population yi nañ les conséquences. kon mu mel nii donc euh, yow da nga gis ne daal loolu ñoom la incombé ñoom ñi nga xam ne ñëwuñu euh, ndaxte place boobu daanaka yow joxoo leen ko dañ leen faloon. exactement man li ma mën assuré mooy sama engagement bi ma jël par rapport ak waa est ce que fofu également amul lo xamné war nañ ko ay daan est ce que euh, jotul ñu ñu xobbi ko fa jël ñi ci certainement beaucoup de euh, disons solution xamné euh, mais li ba wër ba la responsabilité individuelle. D'accord. population yi seen Bop, mais c'est sûr que maire bi mom amul dara lu mu ci def amul dara lu mu joté gañi mais euh, quel que soit lu ñu mëna joté joté mo ak ñom dara d'une part et d'autre part quelque assemblée nationale da ngay gis mais li ñuy souhaiter dans un conseil municipal moy ki xalaate nii kii xalaate nii kii xalaate nii. looloo xalaate nii mais loolu ñu bëgg. ñuy tiisoo wala ñuy ñuy xuppante mais nak ci biir conseil bi. tout simplement kenn waru ko jël diko togalé sa kër. jël sa ay convictions défendre ko jusqu'au bout doo d'accord ak maire wala keneen loolu la ñu souhaité une diversité ci opinion yi. la conviction ci expérience yi ba nopp ñu dem vote mais ñu ngi génn ci vote Sénégal ñëpp d'accord ñu ku nekk da ngay voté assemblée nationale ñëpp d'accord ñu ñun loolu la souhaité. parce que aussi c'est pas une forme de boycott parce que bëgguñu bëgguñu conseil ba nga xam ne nii euh, benn camp la.

ma xamné ne ma fal duma ko def damay démissionner nit day am une certaine exigence rigueur et surtout nak le respect respecte ñi la fal moy wa Bargny damay démissionner su ma ko mënul. loolu mooy euh, xalaatu Abou Seck maire bu Bargny na gis na yi nga xamné Euh, lu ci ëpp du ñu ñëw ci conseil municipal bi te doon nag ay kilifa euh, bu ñu mënee dañu war a ndax tam euh, lañ leen fale jëfewuñu ko loolu également lañ ciy toftal mooy ji nga xam ne moom ngay jiite muy commune bu Bargny état bi daa jël ay projet jamono bi saxal ko fa bokk na ci li nga xam ne moo di pôle urbain bu Diamniadio nañ taxaw foofu ndaxte pôle urbain bi daa lekk suufi Bargny baat ba tudd Diamniadio tey yow dama seetlu saa yoo génnee wala ngay wax dara da nga naan pôle bi dañ ko war a rafetlu ndaxte dafa nekk ci li nga xam ne moom moo di diggante Bargny Bambilor ak ak euh, fi nga xam ne Diamniadio rawatina Sébikotane waaye foofu avantage bi euh, gis nañu ne euh, Diamniadio la gën a faale te moo ne suufu Bargny la fëkk. l'État le programme du président Macky Sall li ci ëpp solo li ci gën a rafet pôle urbain bi ci la bokk te pôle urbain bi dama koy répéter mi ngi ci suñu ab dëgg xam nga politique des pôles urbains fan lañ ko jëlee en Angleterre 1947 nous avons créé 15 villes nouvelles en France 1960 nous avons créé 9 villes nouvelles dont 5 qui xam ne mi région parisienne objectif yi ñaar la décongestionner capitale li ñu am tey Dakar di étouffé moo doon am fofu ben. ñaareel bi absorber croissance démographique bi avons dëkk bi ni muy

amul woon benn école amul woon benn emploi amul woon benn service bu koy accompagner bi président Macky Sall ñëwee mu ne une politique articulée inspirée wu ci ville nouvelle yooyu ça a été créé dans ces pays objectif bi nit ñi Dakar benn ñaareel bi dëkk bi day meññ ñooñu di meññ ak ci biir ville nouvelle objectif yoyu ville yoyu malay wax non nouvelle atteindre nañ ko bo les exemple Paris par exemple plus de la moitié croissance démographique bi ville nouvelle la nek les cinq villes nouvelles autour de Paris 70% entreprises yu bees yi bëgg ville nouvelle la tok donc objectif atteindre nañ ko ma bëgg xamal nit yi ne lan mooy ville nouvelle boo jëlee par exemple exemple français bi nga xam ne moom la ñu gën jege. 5 villes nouvelles yi Paris amul une ville nouvelle qui ci commune Évry la ville nouvelle d'Évry 13 communes Évry le toudou ville nouvelle d'Évry 13 communes périmètre la ville d'Évry Ris-Orangis Grigny Viry-Châtillon Fleury-Mérogis on on continuer lim les 13 yep. et pourtant Évry le Toudou. melun sénard ville nouvelle de melun sénard 18 communes la ville de Melun la ville de Cesson la ville de savigny le tam comme la ville Monona continue. continuer Marlavalé, Marne-la-Vallée 21 une communes ci département dafa mel ni tey rek ñu ville nouvelle bu Diamniadio euh, dem ba Mordre ci département de Thiès ba Pout beneen bi ñu dem ba Mordre côté département Bini Marlavalé, Marne-la-Vallée 21 communes ci ñetti département Sergi, ville nouvelle de Sergi, 15 communes ville nouvelle de 51, 11 communes Amoul ben ville nouvelle bo xam ne ci ben commune la né. il faut mo am tour yi ma la wax ni am na ay tour mais téwul ci biir ci biir euh, tour bi mu porte mi ngi ci mais ak yenen commune té bo démé ci ville nouvelle yoy mënoon na ci dugg parce que xamna ko bax yu bari déggee na ci liggéey bu bari ci ville nouvelle yi Bo démé ci biir ville bi ci gëna am solo ville bi ci gëna attractive mais du ville bi nga xamné mom la tuddu. Motax may wax né ville nouvelle de Diamniadio la tudd mais ci ñetti commune le nek est-ce que Diamniadio Bargny. Mhm. Bambilor et Sébikotane té ville bi ci ëpp bi ci gën am solo moy ville bi nga xamné dina comprendre lan moy enjeu pôle-urbain ville bi nga xamné ay population ñoo gëna mieux formé parce que emploi fay amit mais nit mën na jóge Ziguinchor ñëw liggéey fa. ville nouvelle yi ma lay wax ni autour de Paris ñi ci liggéey dëkk ci ville nouvelle 30 à 50 là. donc le Sénégal il ñoo ko bu ne population bargnoise y a une population mais maintenant, entre ville et limal Sébi et Barni, oui la population bargnoise a des atouts ça ne tient maintenant qu'à elle tout simplement il faut ñuy wax nit ñi li nga nous am président de dara mais euh, il daf may jaxal dynamique de ville nouvelle lan dynamique de ville nouvelle on va supposer juste que suñu ville nouvelle bi am les résultats yi ville nouvelle européenne plus de 50% de la croissance démographique ben, plus de 70% des entreprises nouvelles sont installées au favo c'est la révolution qui est en marche chez nous. Dire le contraire, mhm. c'est ne pas comprendre qu'est-ce que c'est qu'une dynamique urbaine et une politique de ville nouvelle. Mais dynamique urbaine bi une jël ak politique ville nouvelle et ak également ci euh, l'aspect territorial bi nga xam différentes communes pour un an euh, ci suuf dafa am fofu ay population yo xam déjà dañ fa investiroon lu bari Nous bay ñen ñi également dañu gis ne seen wayjur wala seen mam ño ñoo ci suuf de yoré tay bi mbir le délégué du pôle pôle d'ailleurs hein, euh, ko lu effectivement modi gestion wu euh, le foncier bi nga xamné mo fa nek également nga amone projet jël les euh, wax déplacer fu ngeen ak Minam ba ñi le contexte de la situation finalement dafa dem intérêt état bi dafa faté intérêt population est-ce que du ngagne ci ñi warona a am ay souf nek nekone fa doon fa sen seen tay tey ñu wax bay amna na donc est-ce que l'on nekul également véritablement donc lo xamné lor la ci ci askan bi intérêt état bi dafa nek à l'encontre des intérêts des populations ya ngi dégg si bop bien sûr ñun ñoy l'état. oui et. projet beaucoup bëggé il faut nga am souf soko ko ñi naan état deful dara bari ñi wala feneen mais état bu ñëwee projet il faut mu am suuf su mu ko teg loolu d'accord nañ ci quand même parce que projet bi du nekk ci jaww ji il faut ñu am fu ñu ko teg boo bëggee projet bu ndaw boo xam ne 1000 mètres carré lu ñu la 1000 mètres carré mais bu bëggee projet bu rëy eh bien day jël suuf su rëy la ca des nag mooy dëkk bi dafa am ay loi et règlement barki Dembo Ndiaye président annoncé na fii nii ñi nga xamee ni ñoom ñoo am yelleef muy suuf muy récolte. Qui finit de prévoir euh, le port président wax na indemniser. à hmm. hauteur de 500 millions. monsieur le maire. Euh, mais vous savez Ce qui est solo pour nous C'est que l'objectif soit atteint. Hmm. et on espère Que nous devons faire des ñu la même démarche nous avons am pôle urbain pour faire en sorte que parce que avons nañ projet mais nous bëgg dans le respect des droits des populations ku fa am suuf ñu jox la indemniser la ku fa am euh, récolte ku fa am garab et cetera def nañ ko ci terre bi rafet na lool amuñu ci benn jaaxare président annoncé na ko ci port bi ñu ngi liggéey pour mu doon la même chose ci pôle urbain bi ba noppi préfet département bi ma koy gërëm ci initiative mu jël ubbi na benn commission pour jàngat situation yooyu yëpp parce que am na situation yoo xam ne dañ ko fekk mooy situation yi Médinatoul Munawwara ñu transféré sendu 2008 peut-être. 2007 2007. donc am na yoo xam dañ ko ci fek yo xam ni préfet jël na ci ay initiative donc prochaine étape bi ñuy xaar moy indemnisation ñi nga xam ñom ñoo am euh, euh, yelleef la ñak ci port bi et bien évidemment mu enchaîné wu ci ñi nga xam moy pôle urbain bi. wa fofu également benen mbir daf fa taxaw te ci euh, jamono yi nga xam ñu ngi koy def yow légui lim nga ko est-ce que. Euh, waajal ngeen parce que da nga waxone ay formation da nga waxone tagat ndaw ñi pour que ñu préparer wu mu am donc une une jeunesse de qualité mu am ño xam c'est des gens formés pour que lepp luñ fay def ci ay liggéey mu mu profito mu profiter askan mi nekk ci Bargny c'est le cas. tay ci pôle urbain doomu Bargny yu bari ñu fay liggéey doomu Bargny bari ñu fay liggéey ñi ñanga ci commerce ba ñi ñanga ci euh, maçonnerie ba ñi ay ferrailler. Ni ñu ngi ci euh, couture couture centre de couture dans la zone industrielle berina ñu ngi d'ailleurs di leen recenser ñi nga xamne dañ fay articuler ko par. ci xayma amagum ci lim. Euh, ça fait plus d'une centaine mais ñu ngi di de manière précise nañ la mëna jox chiffre bobu mais xam nañ doomu ñu ngi fay dañ koy ko projet bobu. te loolu day gëna day gën a yokk parce que tey jii nii yow boo fa jaaree entre li nga xam ne ni mooy EDK di dem jam ñaajo gis nga bande boobu à gauche mais la fa am ci ay entreprise en quatre ans mat na une dizaine ñaata station essence ay doomu bari ñu fay liggéey ba noppi booleeg pôle urbain bi marché international inauguré nañ ko barki demb dina am ay effet c'est évident effet de quelle nature vous faites ne vous pousser emploi est-ce que également donc des recettes municipales yoo comment engranger. mais certainement certainement Nous nekk fait non depuis Diamniadio euh, depuis euh, Ricard effectivement zone industrielle bi barki dem ba commencé donc le temps que machine bois nekk en route ñaari effet majeur un effet am oui des rentes fiscales bien sûr mais oui des emplois pour nous dem ci donc euh, l'église vitesse de croisière et vous allez le constater dans les deux cinq ans à venir moi je le dis c'est vrai je connais très bien ces problématiques c'est mon métier et j'ai beaucoup travaillé dans les villes nouvelles françaises beaucoup beaucoup je vous dis il y a une révolution urbaine en marche et dire que ça l'ol amul ben impact mais c'est ne pas comprendre du tout mais ñi koy jàmbat généralement mooy famille yooyu nga xam ne euh, dem souvent sax ay procès day lay day day ci am dem coow yooyu moo koy andi plus que les c'est pas que les familles les familles c'est normal on les accompagne pour que tout ça naka nga leen di naka leen naka nga leen accompagner je te donne l'exemple du port dañu ànd la mairie la préfecture et les familles et l'association des agriculteurs et je rends hommage à Issa Gueye ak Issa Thiombane ñu dem ku nekk sa périmètre ñu délimiter avec un géomètre boo xam ne ñun ñoo jël par exemple délimiter lépp def tout le recensement mairie préfecture avec les familles avec l'association des agriculteurs jox naa leen sax euh, bureau boo pour ñu a def seen administration sur la table du préfet ba ca préfet pare mu déposer ko APIX le président tiré montant bi nga 500 millions et on espère la même chose pour le pôle urbain parce que le recensement a été fait et c'est sur la table des autorités on espère la même chose et on continuera accompagner pour amener la dernière fois def ils sont ils ont ils sont à taper sur la table. non j'ai pas dit que j'ai pas dit dañ jot. non man à rappeler ne j'ai pas dit le contraire c'est-à-dire bu bu nous defal nga faveur mais nous derrière. ils rien reçu suñu liggéey rek accompagner nos familles. Lool raison d'être accompagner nos familles li nga xam ne moom la ñu ñu jot ko. mais monsieur le maire a au pouvoir yow euh, yaay représenté APR fofu yow sa kàddu yi déjà yow yaay directeur de cabinet du ministre de la pêche Fofu port la donc dafa war a Moussa les lenteurs de l'état xam nga ko tay ji ni mais loolu prétexte administratif la non pas du tout tey jii boo xayma chiffre bi dama ko faté li état bi amel au niveau du Sénégal ci ay indemnisation bari na et depuis nak quel que soit les régimes motax manila ñun suñu taxawaay mooy accompagner nos familles def nañ ko ci port bi teg nañ ko fiñ ko war a teg annonce yi ñëw na yàkkamti nañ lool ñu fay pareil pour li nga xam ni moom mooy pôle urbain bi on fait notre travail et fépp fu réunion amee occasion bu ñu mënta am on écrit partout fépp fu ñu koy waxee lu ñu ko war waxee dañ ko fay wax pour tout simplement que les situations se débloquent parce que bëgg nañ projet yooyu benn mais dañoo bëgg nañu koy dugale mu aw yoon famille am lu ñu am dëkk bi gis ci boppam pour ëllëg xale yi am liggéey parce que munoo nii bari ñi amul liggéey cité dortoir ñëpp di kaas mais bu projet ñëwee nga ne du fi am loolu mooy lan à un moment donné il faut que nit ñi xam ni oui il faut que projet yi ñëw bari ñi mais oui il faut que duñ koy dugalee mu répondre tout simplement aux critères sociaux. est-ce que bon maanaam. est-ce que moo am ña fa am yeleef. Mhm. ña am ñàq. Mhm. ñafa am suuf. ñu mën leen indemniser et ñi mu gën a gaawee. est-ce que moo fa am parce que boo jëlee pôle euh, pôle urbain de Diamniadio dugg na ci suufu Bargny tur wa euh, euh, wéy na dem na Diamniadio jéem nga ko expliquer beneen jamono. c'est pas que jéem nga expliquer xam nga xam nga il faut tamit ñu wax ak nit ñi li ma la wax nii man ba bëggoon. mën naa dugg ci ville nouvelle yooyu ma d'Angleterre. Angleterre non non non nangul naa la ko loolu nangul naa la ko monsieur le maire wax nii. Euh, toutes ces villes nouvelles yi ma ville ba fa dynamique du ville ba portée commune ba. mais daf ci bax parce que Ibra tay bu ñu ne le pôle urbain de Bargni daf ci bax je yobale dis pas le bi fune day xëccaale également nit ñi ñu gën ñoo jégé ci Moussa en 2014 lañ ñu installé ba ñuy ñëw les décrets jël nañ ko sur les 1600 et poussière hectares tour wa jël nañ ko jox ko Diamniadio ñu fekk fi une situation pareille. oui d'accord d'accord d' ñaar mo amone xex mu tudd Bargny Diamniadio Mbambilor Sébikotane xam nga ne tur boobu doy waar lool mais dañoo gëm parce que xam nañu lan mooy ville nouvelle Donc, ba ñuy ñëw yooyu yëpp teg nañ ko amul problème maintenant nous nañu ne les déterminants oui c'est une communication pour la ville de Diamniadio bien sûr mais c'est nos frères c'est nos cousins loolu amul problème mais déterminants yi yor attractivité ville xam nañ ko mooy une population formée un bassin de consommation dense une population au fait des nouveaux enjeux et qui peuvent demain prétendre aux offres d'emploi qui seront distribuées là-bas. Et eh bien sur cette dynamique-là, des quatre communes qui jouxtent le pôle, barni et moi je peux vous dire Manaloa oui la ville la plus attractive de ce pôle ce sera Barni. ce sera Barni. donc ça c'est en perspective C'est kanam. même. les très proche très proche. oui bon n'oubliez pas également les familles parce que Bobag légui également coow lu parce na parce que ba légui ken indemniser len moy ñi nek ci euh, pôle urbain bi ak ñi nekk ci port bi ñu dugg ci port bi. le le le le problème c'est que man nañ ko tourner dans tous les sens man maa la gën a ñu indemniser len ah oui. ah oui. d'accord. c'est très bien loolu mom c'est une très bonne nouvelle parce que nit ñi bu fekké né Moussa bi nga xamné oui mais Moussa oui. c'est une très bonne nouvelle pour toi mais ces familles là ils savent que je les accompagne, la mairie les accompagne depuis le début. Non, c'est de bonnes guerres, Quand tu dis une très bonne nouvelle. Oui. C'est pas une bonne nouvelle. peut-être que yow a eu door très bien Lolo. parce que tu fais semblant que ne. non du tout non du tout non. je suis désolé. Mhm. on leur a donné un bureau. les agriculteurs. oui Nenal. naa la gardiens systématiquement chaque récolte Nous ànd ak géomètre def les levées amul lu ñu waxul ci préfet bi ba tey ñu annoncer un montant et une date maa la gën a yàkkam ci loolu parce que suñu raison d'être mooy population yi gis seen bopp ci li nga xam ne mairie wala état mi ngi koy def. très bien te am naa yaakaar gëm naa ni incha allah loolu dina rek. alors monsieur le maire léegi bu ñu jubloo ci dañuy pousse tuuti rek jógee pôle urbain ñëw ci port bi foofu également li ko dalee woon fi ñu daan woowee Mbalibor jëm ba sendu foofu également port bi jël na suuf si yëpp demaat également kañ la ñu annoncé port bi. kañ lañ ko annoncé c'est-à-dire. kañ nga xamné y a un projet de port fofu yàgg na port bi déjà bi ñuy lal Miferso boobu temps wu Abdou Diouf la won ok yeggali. <laughs> fofu la jëm monsieur le maire boo ma bàyyi rek ma ñëw alors port bi bañu ko annoncé waa Bargny depuis le depuis depuis le départ ña doon bay fofu déjà Miferso bi bi ñu commencé woon lal sax nit ñi commencé woon soulever inquiétude à na un dressage de mur bu fa nekkoon les gens étaient allés ñu dindi la clôture ba pare ñu continuer waat ci processus bi état bi jekki waat na tekk kenn waxaatul ci ça nous ñu jekki du temps donc euh, de euh, du président Wade ñu mel nous sommes dañu bëgg di yeewaat di yeewaat di yeewaat di yeewaat ba tey ji ni ci temps wu euh, ki nga xam Momo di Macky Sall finalement le port se réveille et le port va s'installer les travaux yi nga xam ne les travaux d'aménagement ñëw déjà dindi nañu lépp loo xam ne guy la woon foofu benn muy euh, contraste boo xam ne euh, contre écosystème bi la également surtout ak l'environnement beneen également li nga la la la bande du littoral diggante Minam ba sendu foofu également dans ci Kabono yi ba euh, la nous presque 250 cent kilomètres yoo dañu ko fa bi ba askan bi sax commencé woon di yëngatu. foofu 250 cent kilomètres c'est énorme. Hein. non deux c'était ça non. 250 km bon peut-être je me suis je me suis gouré euh, ci euh, normalement wala 200 m mètres au moins 250 cent cinquante mètres yoo xam ci littoral effectivement c'est 200 mètres yoo xam ne ci tefes gi. ko Sendou mu alors foofu li ma mën li ma port également les mêmes causes et les mêmes effets lay def ci li nga xam mom modi askanu Bargny diggante sendu ak minna mu melni ni ñaari ñaari euh, euh, municipalité dañu sétane loolu ba mu installé wu au fur et à mesure. Euh, xam nga Moussa aussi quand on euh, parle aux populations il faut rek ñu wax li nga xam mom mo am. lan mo am. ce projet même certains ñu ngi wax né c'est depuis Senghor. oui mais li ñu mëna japp jàpp yag na lool. trop fofu biñ ko titrer yag na lool. On avons fait defee titre foncier yàgg na du demb du barki demb du bien avant même dañ ko def titre foncier parce que ñepp xam nañu ko c'est vrai des fois nak dañuy manquer réaction et anticipation et je vais may ramener ce ci nous avons wax tout à l'heure Fofu, trois prises en compte trois éléments à prendre en compte un l'aspect foncier wax nañ ko tout à l'heure avec l'annonce du président deux moy la continuité urbaine euh sendu ak ñi nga xam ni ñom ñoy Minam mu am une continuité nit ñi mëna a fi dem day am un projet de contournement tay bo démé gannaaw côté nañu sax yoon bi def ko latérite pour préparer contournement bi trois moy environnemental ñetti lañ ci am première bi foncier wax nañ ci tout à l'heure matérialisation de promesse au président ñaareel bi contournement bi bo démé xoss nañu fofu xëy na da fa géej ñettel bi moy un suivi environnemental. non élection yi rek dem na fa bi may dem seen. gis nga contournement bi. parégul nak ñettel bi moy un suivi environnemental rapproché. c'est nos trois exigences. té duñu ci joggé au service tout simplement des populations et de l'intérêt du projet parce que projet buy dugg ci dans un environnement et qu'il soit compris day faciliter en tout cas l'appropriation de faciliter le déroulement donc notre rôle c'est d'une part d'aider à insérer ces projets de manière cohérente et que ça soit compris par ces populations mais surtout aussi de prendre n'y ñi nga de dañu fa am ay droits respecter ces droits là c'est ça notre travail oui il y a des lenteurs au niveau de l'État constaté constatez, ça revient à encore lenteurs mais je le regrette c'est comme si l'État bi, ñi côté leur, projet peut continuer à attendre. Il faut nga def touti euh, recherche combien l'État doit en matière d'indemnisation à l'échelle du territoire national. C'est des milliards et depuis. Donc dama veux bëgg que ce n'est pas parce que sur un tel projet que on en veut aux populations de nous. Ça n'a rien à voir. Ah, en tout cas, c'est un, un, cri de cœur. Mais c'est parce que... Comme nous, qu'est-ce Mais c'est parce que... Parce que yéen Parce que yéen seen liggéey. ñun waaw ñun ñan. est par exemple. mais man man kan presse nga bëgg Moi il faut fouiller presse quoi de manière générale. je ne m'attaque jamais à la presse. d'accord faut fouiller. Mhm. de manière générale problématique bu amee da koy fouiller est-ce que c'est spécifique ici ou bien est-ce que c'est une donnée plus ou moins globale ce pays n'a pas les moyens d'un développement en un mandat. Le président ah, a énormément fait. le président a énormément fait. Mais <laughs> <laughs> nous ah, discussion, notre pays n'a pas les moyens d'un développement en un mandat. Lolo moy lan tous les problèmes du Sénégal qui un mandat. même, 5 mandats, ça, nous pas Peut-être, non. Euh, après, je te laisserai le choix de 5 mandats. Mais nous, les Sénégalais, mais sinon, tous les problèmes, c'est les régler. Marie, d'autres mi li am solo moy fa ñu jëlé dëkk bi fa ko président jëlé dans une situation de mais total chaos ak tay fa mu ko tek campagne bi wax nañ ko ñëpp ñaata autoroute de trente kilomètres à deux et quelques mën naa ko ne di ko lim fara feñe et cetera et cetera énormément de choses def nañu ko mais oui musuñu prétendre né en sept ans dañuy régler tous les problèmes du Sénégal motax mané le forcément dina am yo xamné boko boo oui des na yo xamné régler réglé gul donc les indemnisations ce qu'on peut rendre comme service c'est mettre les choses en perspective voir est-ce que c'est spécifique au port ou bien est-ce que c'est une donnée globale mais bu mu ci si ñun suñu si suñu bëgg-bëgg projet mairie ñu jël en compte say intérêt et dans les temps les plus rapides. alors faut également ci fi ñuy ci côté bobu moy l'aspect environnemental parce que faut gis nañu né boo ne port minéralier et vraquier ça sonne mal Ni ñëw def ko ci tefesu Bargny ak Sendou bobu fofu euh fi nga xamné modi tefes gi ndox mi da da da da, daa neex ba nit ñi dañ fa doon dem tout le temps di sangu ji ñenn ñi également fa lañu dem di noppalu amone fa ay kabano tay suñu fa andé port minéral et vraquier stockage bec matériel nga xam moy mooy transité war génn ci tefes gi dem warna am normalement ay résidus yo xam souvent mën nañu dess ba mën andi njix njaax ci kew gi est-ce que yeen sóoraale ngeen ce aspect environnemental nga xam ce sera dangereux et néfaste pour véritablement li nga xam ne di l'écosystème marin. Moussa tey vraquier euh, produit yoy ñuy réceptionné ci portu Bargny xam nga mu ngi ñew Sénégal tay ban port lay ñëwé xamoko boru booru xam nga ko wala xamoko mais portu un wor na la. <laughs> Ah, mais c'est évident lolu mas nga dégg portu Ndakaaru un problème euh, spécifique à ça. pour l'instant nañu yàlla dimbalé bon nous nañu yàlla dimbalé ñu connaissons par les mêmes méthodes les mêmes mesures avec les mêmes exigences en termes de prise en charge des préoccupations environnementales pour dara bañ on espère et que donc euh, mbok yi ñuy fatali ne yéen ngi ci sen émission bi nga xamné mom moom di jakarlo politique tay yi nak suñu gan mom moy yi euh, gay Abou Ahmed Seck mom mi nga xamné mom moom di maire bu commune bu euh, Barni, ba nopi tamit nek coordinateur bu APR foofee nga xamné mom moom di Bargny doon di sen comité électoral légui nak ñu ñew ci benen bonk pok ci projet nguur gi muy central à charbon bi ciow lolu nak monsieur le maire reyna lol, lol, lol. ci te ciow li yag na yag na lol gaa sax ben jamono fi def ba rouge fu fu fu ciowal askan bi tollu ak dingat bi nga xamne mom lañu dingat centrale bi ba ni mu commencé ci ak jafé ça, sax yi nga xamne mom la am pour exister évidemment euh, donc ci soufu fu mbir yi fan ngeen ci

di tog ak gañ yi nga xam ñoko ñoo ko fa a sanc pour ñu ñu ñu mën commencer ay négociations ba nopi ñu def li nga xam mom modi euh rencontre ak population yi fofu sax sa bir maire yi ba pour askan wi woné ñom seen ñàkk and ci li nga xam mom modi euh, donc central bu ni mel terewul état bi mom da continuer ci bir gise yoyu finalement terewul mu samp li nga xam mom modi central di donc donc processus bi depuis Mar Diouf ba ni nga xamee Abou Seck ak euh, nouvelle équipe bi yexé nañu mom lañu continuer mais téréwul askan bi continuer di bañ mais finalement ñu taxawal ko. xam nga. Euh, comprendre ruñu dal dafa mel comme état mom du jël mukk en compte. nit joyu askan bi. nit day jangat ci situation yi mu gis. né nga biñ koy déroulé 2008 Ablaye Wade mo fi nekkoon attitude du Mar wax nga ko mais teewul projet bi continuer ñun bi ñuy ñëw c'était exactement pareil que le projet bi ficelé nañu construction yi démarré financement bouclé plan d'investissement tout est calé on avait deux attitudes continuer à faire comme nous ko s'opposer tout en étant conscient que nous ñu won arrêter dynamique ou bien tout simplement discuter pour infléchir changer les orientations du projet mais xam dafa contrôle Abdoulaye Wade bi muy nam lu def mi euh, mel. je je bu ñu demee bu ñu taxaw ci ay. considérations non non en fait non non c'est ça important monsieur le maire c'est important parce que euh, normalement dafa waroon nek avantage yéen ñi nga xamné ne ñu a au pouvoir nekk au pouvoir mais 2012. le président Macky Sall est au pouvoir. ànd ceeg waa PS ak bien sûr. ñun 2014 lañ oui. mais deux ans yooyu une projet bi kenn arrêté wu ko ba mais bon, ce sera dama lay wax des à charge donc des deux des deux ministres problème du problème couleur politique faites fekkoon le problème couleur politique Le bi président ñëwé Macky Sall ca lañ koy arrêté mais téwul parce que mar mi ngi won benno en bokk yakar bien sûr son secrétaire général Ousmane Tanor rien mais téwul projet bi arrêté donc nous daf ñu won ni ñaari attitude dañ ko discuter conseil municipal ban attitude la jël ñu évoquer tous les cas passés est-ce que on s'oppose pour faire un peu de euh, démagogie on s'oppose on pose tout en étant conscient que nous ko arrêter ou bien est-ce que nous discuter pour changer les orientations parce que y avait une unanimité des acteurs environnementaux pour nous beaucoup ko gaz. Le le premier ministre annonce que nous ba Nous may conseil on s'est dit que les gën réaliste moy, changer orientation def ci nak ay réunion publique yo xamné ne jombul am na ci fekkee réunion publique yoyu mais 90% des gens ya fa d'accord uñ ci won mais dañ effectivement mënuñu ko arrêter nañu jéem xol nan lañuy changer orientation yi lolou mo doon la position officielle ci biir waxtaan woowu nak mais ci la changement de combustible génne charbon au gaz étude bi mi en cours avec la Sénélec et d'ailleurs aujourd'hui Sénélec wax nañ ko centrale yu bëri bes bu gaz bi génne dañ koy yobbu en gaz yep donc dañuy xaar ba gaz génn ñu soog ko à gaz la boobu mu continuer di di xër saxaar waa Bargny di lor la prévision c'est 2021 loolu la diggee mo vous allez en Europe en France ou en Angleterre ou en Allemagne il y a des centrales à gaz il y en a six en France, par exemple. Mais le principe transition, dans tous ces pays. Et donc, nous, nous dans ce principe Pourquoi de pas transition. ne pas commencer avec gaz, balangay dem ci ci li nga xamné mom euh, déjà charbon parce que charbon euh, donc importé gaz importé c'était notre c'est pas du tout pareil importer du charbon et du gaz c'est possible bien sûr mais ça n'a rien à voir c'est pas pareil techniquement mais je vais vous mais dama lay expliquer man lool moy position pour mu nekkon tay demain voilà mais man nga dem dans une discussion et dans une négociation où effectivement d'obtenir li nga bëgg tay suba ça c'est la vérité on dit les choses de manière très claire non non d'accord donc nous nous sommes mais effectivement ce qu'on a pu obtenir moi à partir du premier euh, mètre cube de de, qui, de, gaz. L'étude est en cours auprès de la Sénélec. Et d'ailleurs, je pense que c'est toutes les centrales qui faut que nous fuel nous transformé en gaz. Ce sera beaucoup plus économe et beaucoup plus euh, euh, moins polluant d'un point de vue environnemental. Ça, c'était la première chose qu'on a obtenu, le changement de combustible. Et je rappelle que toutes les associations à l'époque, tout le monde, lors de Nour, a changement d'orientation. changement d'orientation noonu nous. opposé tout en sachant que nous sommes arrêtés, mais on n'allait rien obtenir ça, c'était une chose. Le deuxième point qui était compliqué et difficile, c'était la question foncière, qui était là depuis très longtemps, depuis 2008. Les indemnisations il y avait 13 bâtiments à peu près, un peu plus de 100 et quelques millions. Ça a été fait depuis très longtemps. Ça a été fait depuis très longtemps. Mais l'État d'Ablaïot avait toujours dit que ni le lotissement était irrégulier. Vrai ou faux, mais en tout cas, c'est ce qu'il sous-entendait mais irrégularité non mais irrégularité bi lan la exactement est-ce que ñom Mar Diouf dafa leen jox parce que mom la woon de son temps jox leen ay souf parce que dañoo yàqule ci tefes gi wala mu fëkk seen kër mu ne leen dem leen ngeen jël fofu diggante Minam 1 ak Minam 2 finalement ñoñu centrale bi ñëw fëkk souf soosu sépp lan moy irrégularité dañu wax euh lotissement bobu le conseil municipal avait validé voté. Mhm. le préfet avait approuvé. Mhm. mais l'État et au sens du code de l'urbanisme, un lotissement est sanctionné par un arrêté de lotir. Oui. Et Man Bataille, qui soumets un arrêté de lotir sur ces lotissements-là. Je ne les ai jamais vus. Mais démarchez au loco non. Mais mhm. non, ñun biñu na nous nañ Moussa il faut se mettre aussi nous discutons dans une perspective. Ben. ñun biñu que na mais le site a été déjà titré et tout donc l'union c'est en 2007. 2008 non comme non je veux dire. comme nous fekk autorisation de l'outil sur un titre foncier de sur quoi am a une construction il faut une centrale donc l'union il faut nous mettre en perspective. non je veux dire est-ce que papier bon parce que da nga ne gisoo fa. Moussa je veux dire que papier est bon. normalement il existe exister non je t'explique euh, L'union ni c'est en 2008. oui Non, 2008 2009 on restitue les faits 2008 2009 qui la Ablaye Wade jëlee une déclaration d'utilité publique Nous immatriculer sud bobo l'état ni le lotissement n'est pas reconnu parce qu'il n'y a pas un arrêté de lotir ben ñaar ña fa construction ils ont été indemnisés voilà ce qui s'est passé et le site a été vendu aux promoteur de la centrale tout ni connaît ça c'était en 2008 les études d'impact validées en 2009 et le travail était en cours nit y a eu une période d'arrêt xam nga période d'arrêt c'était un changement d'actionnaire benn actionnaire ba nga xam des capacités pour suivre le temps ñu génn ko ci consortium bi wut actionnaire le projet continue 2012 le président ñëw hérité ko toute la dynamique était déjà partie nous ñaari option et man je serai toujours honnête envers les barnois du ma taxaw mukk di leen wax je vais l'arrêter tout en sachant que arrêtez que bu yomboon duñ ko Moussa on est d'accord il faudrait qu'on soit honnête avec les populations arrêté que bu yomboon on l'aurait pas trouvé sur place wax nga li ci ancienne équipe def wax nga ñi ci doon def nous ce qu'on a voulu faire c'est changer les orientations et ce changement on l'a obtenu waxna tout à l'heure par rapport au combustible mm-hmm. mais dang may bàyyi par rapport au foncier que mu am un lotissement autorisé ou pas, oui. quelle que soit la situation, ma question. Il y a. Non, je restituer les faits. D'accord, allons-y rapidement. Maintenant, mhm. qu'il y ait autorisation ou pas, ça ne compte pas. C'est du juridisme. li compte à ay population dañ ci caron parce que les gens day lekk seen ay di def à partir de là qu'est-ce qu'on a fait on a engagé des discussions dans le cadre de ces discussions là qu'est-ce qui est ressorti la mairie va donner des parcelles à toutes les populations réellement impactées par l'érosion côtière. Je dis réellement. réellement pourquoi réellement Parce que mon lotissement boobu nga wax amoon ci man mi. yow mi. man mi. yow da koo bari monsieur euh, non déglu ma wax la nekk moon sax à l'époque j'étais même pas ici j'étais en France. même ma yëgali ñi ci am. non mais non attends li ngay wax ni dafa dangereux non attends monsieur le maire. mais même la Yegali. allons-y bëri na ñoo xam ne dañ cee am te amuñu problème érosion côtière c'est la réalité man am j'étais en France à l'époque nous ce qui veut dire que donc du temps du magistère de Marjouf, parce que nous fa fait li ma la mën wax. kayit yi nga xam lañ ils ont pas été impactés par l'avancée de la mer. je te laisse tes propos mais man dama ne Abou Seck. non man damay laajte. parce que yow boo ci amee te dëkkoo bari ñi géej jaaxal. visiblement mais est ce que ñëpp la wala je te laisserai le choix mais dama la bëgg a wax ni ñun bi ñu dañu les populations réellement impactées man Abou je sors nan nan nga def ba euh, j'étais ah. <laughs> <laughs> à Montpellier on m'a appelé et voilà jamono bob ñu ko on joxé euh man nga def sa mais j'ai rien fait d'autre que tout simplement un citoyen barnois on m'a donné. et nga accepté aussi. Euh, à l'époque oui oui oui j'avais pris. d'accord. donc mhm. c'est pour dire que ni c'est pour dire mais je ne savais même pas du tout à l'époque j'étais très loin hein, ne pour à l'époque j'étais très loin. d'accord euh, ñun qu'est-ce qu'on a dit les populations réellement impactées. donc les populations réellement impactées. Mm. la mairie je dis bien. Mm. leur donne une parcelle. absolument et on a dit à nos partenaires de la Sénélec mm. on veut apprendre la leçon. On ne veut pas juste donner des parcelles, on veut aller au-delà des parcelles. Accompagnez-nous dans un plan de relogement. Ils ont accepté de mettre 600 millions le PM nous a reçus et a instruit la Sénélec de mettre davantage. Qui va mettre 600 millions Qui sont ses partenaires euh, La Sénélec, les 1 milliard sont déjà versés. D'accord. Ah oui, Khalisbo Mungit 2. Mungit Trésor. D'accord. L'appel d'offres a été publié la semaine dernière. boolewuloo xaalis boobu sur ce budget. Euh, non Moussa. lay monsieur le maire parce que Khalis annoncé. c'est c'est de l'argent qui est bloqué. il y a des choses c'est des insistements. il y a des règles de comptabilité publique. Il y a ñu voilà non mais ay nit ñoo ñuy déglu aussi. xam nga yow xam nga yow xam-xam bi nga am. ci walu gestion. municipale sama yaay amuko ko. fond boobu man damay bëgg mu leer moo may poser question yi lenn rek lañ du Moussa Pouye mooy poser pour moi mais parce que lenn rek lañ ko mëna utiliser. moy hmm. pour relogement. très bien voilà kon loolu. alors sécuriser nañ ko. Euh, semaine dernière pour loolu semaine dernière. l'appel d'offre a été lancé ñi suivre les journaux gis nañ ko. oui pour la construction d'une centaine de logements. gis nañ ko. on a fait le recensement de Gouye Diolancar. Hmm. à Ndiaga Samba maintenant bien sûr. Et aujourd'hui, toutes les populations font face front mer, ils vont pouvoir être relogés. Il reste une deuxième phase, parce que l'OL, ça permet de reloger qu'une partie. Il reste une deuxième phase, je préfère taire les, les, trucs parce qu'on est sur différentes pistes mhm. pour régler la question de la deuxième phase. Mais Boutial Andé, on sera la première mairie à engager un plan de relogement et y aller. Boutial Andé. Nous, nous, quel que soit un problème on s'attaque à ce problème loolu est la deuxième chose la troisième chose c'est qu'il y a un comité de suivi environnemental qui a été mis en place pour suivre le projet Absolument. je ne parle même pas après des actions sociales l'école etc etc pour obtenir ça il a fallu changer de stratégie mm-hmm. personne à Bargny ne voulait de ce projet mais va-t-on aller tout en sachant que nous arrêter ce qui a été fait de 2008 à 2014, pendant six ans, et eh bien, nous, on a fait la leçon de ces six ans, Moussa. Mm. On a fait la leçon de ces six ans et on s'est dit, changeons plutôt de stratégie pour influencer le projet et l'amener vers un sens. D'ailleurs, toutes les associations environnementales dont la le gaz, la prise en compte du foncier. Donc, certainement, on a obtenu des résultats, mais je le dis, il faut rester vigilant et veiller. Notre Mhm. c'est tout simplement la prise en compte des intérêts des barrières. la question environnementale, je suis d'une sensibilité environnementale boo ne imaginer. d'accord et dans cette sensibilité est-ce que tenir en compte la cohabitation de ña ca xel kom ak na ñu bëree liggéey bi ak condition nga est-ce que tenir en compte La cohabitation bi est ci centrale bi moo xam luy Ou ndox ak yu ni mel ndax ñoom sax am na benn jamono ñu woo ñu ndax loolu ndox moo xam ne daa bàyyeeku woon ca centrale ba lor seen euh, lakkukaay yi euh, ba noppi la dernière fois gis nañu ko parce que dañoo teggi yoon ba nga xam ne fa la ndox mi waroon aw mu yàqal leen ba tax ñu déplacé wu bi ñu déplacé wu lakk lakk boo xam ne daa laal kopp bi mu laal poteau électrique mu lakk foofu yëpp dañoo mujj def descente. loolu loolu bokkul. ankañ il y a eu ñoom ñooñu ko wax. ñooñu dañ leen déplacer fii moo tax ñu yéeg ca kaw. la ñu yéeg ca kaw mooy la ñu taal ñoom la ñu taal moo embrasé li nga xam ne moo nekk ci suuf. Moussa donc ay euh, conséquences la. tout doucement oui allons-y. Euh, il y a eu de l'eau bu doon génnee de la centrale. oui et on l'a dénoncé partout on a fait ce qu'on devait faire. Mm. pour que plus jamais loolu bañ a am man dama gëm ni chacun doit respecter les droits de l'autre. oui d'accord à partir du moment où avons implanté dans des règles il faut nous respecter le voisinage et respecter les normes que nous respecter et à chaque fois qu'il y a un manquement on serait là on sera là pour le dire et pour le faire. la Sénélec a fait pareil parce que nous ci échangé avec DG bi ils ont fait pareil ils ont écrit ils ont parlé pour que ça ne se reproduise plus.

indemniser ngeen indemniser leen. yaa nga indemnisation lañ appui social le Fona correct. D'accord. appui social moo correct. correct. parce que ndogalu voilà tac, tàkk ndogalu yàlla disons. en tout cas voilà. légui di ngeen len di aménager le site bi parce que lolu aussi annoncé won nga ko la def. lolu bokk na ci point yi nga xamné dañ ci waxtanon ak les partenaires Sénélec SCS moy moderniser le site. D'accord. parce que le site aujourd'hui il faut dire la vérité c'est un site qui n'est pas reconnu par euh, euh, l'État tout simplement parce que voilà on sait. Mhm. bon et pour pas ci nuit... wi ñu defaral leen xel et 80 millions ont été dégagés par la Sénélec. le conseil municipal le milliard ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir d'accord euh, le conseil municipal a délibéré et défini l'assiette l'entrepreneur a été choisi c'est un barnois. et le travail de délimitation de site est en train d'être fait pour qu'enfin pour une première depuis toujours, Quelqu'un a un visage moderne, reconnu par la loi, et que les produits donc puissent avoir davantage de valeur. Vous savez, comme je disais, tout ça, on l'a obtenu en discutant. Tout ça, on l'a obtenu en discutant. Moussa, notre rôle en tant que conseil municipal, Si nous avons talk, situation mais situations... li fi un projet 2008 2014 les gens nag naan non projet bi di avancé nga xam parce que on est au sein de jeu d'acteur au sein d'un jeu d'acteur je ne dirais pas que euh, Mar dafa cuune ci loolu je ne dirais pas que ñi ko doon xeex dañoo cuune du ma ko wax parce que def nañu lu ñu mën ñun nag ñu jàng ci loolu nii nañu jéem a infléchir te ba ñuy le, le principe d'aller vers le combustible gaz c'était la position et je le rappelle ici de toutes les associations yow fait que des réunions publiques mm. yoo xam ne les associations le exprimer xam nga lu ñu amul ci discussion bi. mooy rapidement du gaz aujourd'hui yéex na de loolu la ñu amul. de te man sax 2021 bi ñu bëgg a yóbbu xam naa euh, temps ñuy tok di xaar na metti Assane def na ju tolok ñett wala ñenti simili moo ñu moo ñu dese ah, ñu yëg si ah, gi monsieur le maire rapidement da nga ñuy wax rek. 2014 euh, 2019 euh, lan ngeen réalisé yéen en tant que maire de Bargny. ñun on avait quatre priorités. majeures di fàttali ne yéen ngi seen émission bi nga xamné mom moom di politique ci Joko FM may dalal ki nga xamné moment de moo di Abou Ahmed Seck di maire bu Bargny. au niveau de l'éducation d'abord, éducation tay jii certainement dem nga ci élection yi école Mervi gis nga ne ñu ngi liggéey. Mm-hmm waaw foofu gis naa fa. voilà ñuy defaraat euh, véritablement ay classes ak euh, mur bi nga xam ne moo daanu ci Mbodj 2. y' a Mbodj 2. Mhm. y' a cinq salles de classe yu ñuy defar yu bees. parce que même sax dama la naroon interpeller pour xam voilà kan moo nekk euh, derrière véritablement ces constructions. mais bon heureusement que vous donnez la information très bien. donc y' a cinq salles de classe. ça on applaudit parce que loolu la ñu gën a soxla ci ci ci ab. école des filles mhm. on a déjà démoli quatre salles yoo xam ne dañ koy tabaxaat. d' accord boo demee it CM KIP c'est certes une compétence départementale mais teewul doomu bari fa ne Nous fa fait ñaari classe parce que ah, toiture tu baaxul Nous les deux ça fait 11 salles Nous avons fait 12 salles pardon salles... dafa ñëw ak murs de clôture ak toilettes bien sûr une première phase où il y a 35 salles qui ont été soit réhabilitées Ou construites donc ça fait à peu près 40 et quelques salles dont euh, disons un peu la moitié à construction nouvelle bref je ne parle pas des toilettes d'accord je ne parle pas des fournitures par an mm. je ne parle pas des prises en charge les bourses sociales il y a plus de 100 et quelques élèves qui ont en charge dans les écoles euh, privées de de euh, non non ça n'a rien à voir c'est des prises en charge des bourses sociales tout simplement qu'on donne aux familles de Barnier tout simplement. nga jóge ci ben année 11, 4 millions d'un petit 11 millions. c'est les fournitures. les fournitures donc il faut pas qu'on mélange les bourses scolaires là bas c'est la mairie. d'accord les fournitures c'est les partenaires qui appuient. mais de l'autre côté pour qu'on aille donc aujourd'hui distribuer 11 à 12 millions. de fournitures par an. ça c'est sur le plan de euh, l'éducation. et taille de l'avis de beaucoup tous les enseignants pour ne pas le dire l'intervention les interventions yi am école yi. Mm. Euh, je pense que ça a été bien accueilli. l'autre élément c'est la santé la santé bien évidemment euh, chaque année on distribue là on va le faire euh, la semaine prochaine euh, 5 millions de, de, de, de, médicaments au postes de santé. santé, mm-hmm. Il y a euh, des postes de santé a des postes dañ santé, nañ y bu des postes de nañ ko. y a des mi ngi santé, di y a santé ñu war a song bi nga xam ne. mais mais bu man ci mur bi rek ngeen ngeen yem. ah non da ngaa dugg ci biir ak tuwaawu. fi nga xam ne fa infirmière infirmière bi dëkk. bu man oui. il y avait infirmière nelawutu fa woon. oui je sais. donc ñun dañoo tàmbali d' abord. fi nga xam ne mooy le poste classique. Mm-hmm. defar ko. ah ba ñu paree ñu attaqué fële nga xam ne c' était abandonné depuis très longtemps. d' donc bo duggee ci biir ça a été complètement refait mm. ñii ñii fi ñu doon fajee. Hmm. ñoom ñu jóge foofu dem ci logement infirmière bi pour libérer fii. ok donc tey jii nii. Hmm. ñu ngi defar fii. Hmm. mais bu fekkee da ngaa romb rek da ngay gis mur ne mur la. il faut nga dugg ci biir gëstu xool la fa am. foofu laa dëkk monsieur beneen bi ah oui fa nga dëkk. <laughs> doo fa fajoo waaye parce que sinon. boo fa jógee di ko gis beneen bi mooy. Euh, benn moo des mooy Missirah. Missirah on va l'attaquer et je l'ai toujours dit Ville Verte on a un projet d'hôpital et je préfère taire les marchés ñu def on tape partout fépp fu ñu mën pour régler ce souci d'hôpital Ville vertegul de euh, euh, non c'est hmm. juste on veut faire les procédures étape par étape Benen bi moy euh, l'aménagement oui l'aménagement gis nga place moy dër de def à la doucement gis place misera. waaw mom lay laaj place Missira yow peut être place de man nga dëkk mais ñafa de bu ñol famille la nekk de jaar dañ effectivement parce que dépôt c'était extraordinaire tey jii. foofu def naa fa téeméeri reportage ak juróom-ñaar changé wul woon heureusement bi ngeen fa defee latérite boobu. donc ñun maintenant dañ lay jàppale. bien sûr que da ngeen non da ngeen dootoo perte temps def ay reportage mais euh, non non mais waxin la quoi. damay damay tooñ c'est-à-dire que dootoo fa def ñaata reportage nga fa def. c'est terminé maintenant man nga fa def reportage. mais ci beneen xarkanam bi. non man moom benen bi mooy qui n'arrive pas à l'heure ñoo ma intéressé. voilà c'est vrai c'est un journaliste un bon d'ailleurs. <laughs> Euh, benen bi mooy. merci euh, beaucoup beneen bi mooy. Hmm. kan moo mënoon imaginer yow mas nga mën a imaginer ne di nga jógee Ndiolmane dem ba Bargny Géej avec une voiture par exemple moy front de mer bi. ah d'accord ci gannaaw. ci gannaaw di ko dalee Njolmaan ba. ba pont ba xam nga loolu depuis nga nek Bargny yow. imaginer peut-être imaginer mais en tout cas euh, bari na ñoo xamné musu ñu won imaginer non c'était notre souhait. c'était notre souhait da ngeen accomplir quoi donc ça ça a été fait c'est pas fini hein. on poursuit. mais aménagement bi aussi il faut na. C'est pas. ma c'est pas fini donc moo c'est pas fini le canal de Barnier, Guedj Moussa. Hmm. c'est toujours pas fini. Hmm. mais on va le finir je vous le dis. Hmm. Euh, ce canal là.

ça n'a rien à voir avec cet aspect social bi nga euh, bon c'est vrai que après y' a eu mais lolo amu ci solo. li ci am solo li ci am solo li ci am solo du question du question y' avait des sacrifices yo xam dañ ko def. def nañu ko. voilà li ci am solo moy que famille euh, dañu ko ne di len laaj chaque fois di len laajaat xaalis di finalement ñom ñu ne lii mënuñu ko ñu taxaw pour xool étudier affaire bi demee non non def loolu ñun ñokoy def on a fait le nécessaire Il y a un comité qui a été mis en place Lolo c'est derrière nous pression bi ñu amoon. ah c'est derrière vous. c'est derrière nous maintenant ñom ñëw nañ fa d'ailleurs semaine passée. les les deux franchissements là moy pont euh, pont ah. boss ak bële ñu koy defar. et que euh, bientôt ils vont casser le dallot pour faire le pont. donc l'ol ils vont le faire. mais tay jii li ñu fa am rek c'est une chose ba nga xam c'est appréciable moy fi ñu tuddee péage bi mais lance un appel aux populations pour que nous baignons tout ci canal bi. d'accord gis nga bu ñu ko defaree ci ci gàttal luñ ci mënta defaree. bu ci nit ñi tour day xaw doy war benen bi ci dess moy tout à l'heure le grand projet de relogement le PROVEC projet de relogement des victimes de la région côtière donc ça euh, c'est quatre grands projets qui ñëpp teg nañ ci seen bët ci yenn yi le front de benn ñëpp teg nañ ci bët on va le finir le canal pareil ñëpp teg nañ ci bët on va le finir le euh, euh Amisera les populations apprécient et le PROVEC on a publié l' appel d' offre ça c' est quatre grands projets. léegi bi ci mujj mooy. développement économique projet yi gis nañu say bi ci mujj réalisation li ñu bëggoon terminer monsieur le maire mooy mbirum politique nga baal ma waxal bi ci mujj. bi ci mujj mooy développement économique. oui développement économique comme comme femme femmes solo. un crédit municipal maa ah un crédit municipal a été mis en place. aujourd'hui il y a 57 millions de crédits auprès d'une trentaine de groupements et de plus de 300 individuels. Mhm. et on a démarré 30 millions ce qu'on veut en termes c'est un grand crédit 200 voire 300 millions d'ici quelques temps. et enfin le quai de pêche. oui eh bien il faut le dire.

Et nous, je l'ai dit et répété, notre ambition, euh, euh, notre ambition, mhm. c'est d'être le premier pôle de pêche de la région de Dakar. et on a les moyens d'y arriver. Ah oui Oui. D'accord, on espère. Alors, monsieur le maire, rapidement, comment me tout dit ce gis-gis C'est 56%, il y a 56,7% il y a am ci Ben législative barñi da da référendum barñi watel Macky Sall. présidentielle, présidentiel 56,7 pour cent waaw mais monsieur le maire xanaa bi yoon nag état bi nag dina jublu nag ci Bargny nag te li mu doon yéexal ci lépp lu mu ko waroon a defal xanaa nag jamono bii nag monsieur le maire jot na. Euh, parce que mënuñu nekk fi état chaque fois bu laajee Bargny mu jox ko te bu Bargny soxlaa du ko jox. Moussa oui. xam nga euh, tu es un ami hein. Euh, loolu dara du ko dindi. <laughs> c'est sûr amul benn adversité nii par presse dama dama dama bëgg a wax ni. oui on n'a pas le droit. Mhm. de ne pas dire la vérité aux populations. 58 on a deux minutes. mu terminer 58 58 pour hmm. président enfin mais dégguloo li ma la wax. li gën a rafet ci projet yi mu am ci PS e le pôle urbain c'est chez nous. tu continues à me montrer que Moussa. Hmm. j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans ces problématiques d'urbanisme, d'aménagement et de développement, hmm. notamment les villes nouvelles françaises. C'est une réalité, li la

nañu yokk wax dafa am solo nañu yokk boo waxee loolu naa ci mais enfin non dafa fi dara non man ku defal ku ma defal dama naan jërëjëf yokkal ma le sens de ce vote c'est c'est ça le sens de ce vote. ah non loolu commentaire politique la yéen. loolu pas un commentaire politique. loolu parce que man wax naa la léegi nee la suñu voir yi baaxul. même nga jëm ci canalisation amu fa. yi lan pour ñu régler ñu parce que la fa defit def na fa de pêche def na fa pôle mais mënuñu ko donc jërëjëf ci lolu ñu certainement pour régler lolu ak Glenen ak voilà le sens de ce vote et tu sais les 56 c'est quoi c'est le fruit de trois choses les 58 c'est le fruit du bilan du président au niveau de notre commune on a fait toutes les maisons pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un pôle urbain qu'est-ce que c'est qu'un quai de pêche toutes les maisons de Barnigé, j'ai dit sans exception aucune le bilan a été très bien compris au niveau national bien sûr, mais surtout au niveau local. Et bien évidemment, il y a notre bilan. Et bien évidemment, il y a notre bilan. et, Enfin, oui, et enfin, et enfin, le travail d'explication parce que comme ni nga ko waxee dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci dëkk bi bari ñi di jéem a lëndëmal bopp nit ñi mooy ñan ñi defaroon comité comité électoral parallèle le non parce que loolu amoon na fa war a yow da defar bu pare sa euh, ëllëg sa war a defar ànd ak Souleymane euh, Assou Diagne ànd ak euh, Dame Diop ma jóge woon ci yéen dellu foofu le président ànd ak Badara Diop également xam nga nit te yéen ñëpp ngeen bokk APR xam nga xam nga nit bu ne dolli ñu wóoti nag def foofu dara

te yow sax après woote nga. moom laa lay wax amul benn leader qui boo xam ne woowuma autour de l'essentiel pour ñu dem ci euh, élection bi. ma lay signaler na nag Benno Bokk Yaakaar ay parti APR est dans la dynamique. PS Madouf, c'est le président du euh, comité euh, électoral d'honneur Moustapha Diouf était tout le temps avec nous Lamine Diouf Ndeye Koumba Seck AFP ils sont avec nous ak Mbène URD. le plénipotentiaire départemental il est avec nous modèle. ak il est avec nous euh, Ndoye Makati Payet il est avec nous. Mm. yow ñooñu nga may wax non, c'est des individualités. Waragana Seck moom ak parteem ñeu jàppale Macky Sall. individualité la té mom avant muy créer parti bi société civile la won doon jàppale Macky Sall. non damay yeggali rek. Souleymane Assou parti socialiste. damay moo tax ma lay wax ni motax mm. ma lay wax ni. certainement peut-être euh, madame Waragana. moo fa am Dame Diop Dame Diop Macky Sall. ma yeggali certainement. Euh, benn parti peut-être mon femme.. d'accord mais ñi ci des mouvement moi je parle parti composant le Benno Bokk des c'est des individus chacun bien sûr respectable clairement man dans la foulée de l'appel du président j'ai appelé tout le monde. ñoom sa jiite lañ bëggul xanaa may ma ma yëgal lu tax ñuy ñuy def loolu lu tax nga woote yow nga dajale ñëpp ñoom ñu dem ber seeni saal yaay journaliste te yow gis nga ci am na ñoo xam ne ñu ngi woon ak ñun suñu comité électoral ba jël fa poste jóge fa jële poste jël poste jóge fa dem fële laaj leen nag ñoom ñu ci ëpp nag dañu ne xaalis bi ngeen di yoree mbir yi nga mu ngeen dul séddale li ñu te jot ngeen cinq millions xaw ma yu tegalaat da ñu tegalaat leen cinq millions loolu lañ ma euh, képp ko xam une campagne réellement mhm. di nga xam ne loolu yorul campagne sérieusement normalement il faut être sérieux dans la vie il faut être sérieux que par rapport à il faut être sérieux dans la vie le parti on le fait vivre depuis un bon moment le parti on le on le supporte depuis un bon moment un responsable c'est ce responsable eh ben, c'est très clair c'est la même chose dans une campagne parce que quand les choses s'enchaînent, débordent. Surtout la belle campagne qu'on a menée, il faut le supporter. On a assumé nos responsabilités jusqu'au bout. Moi, moi ah ben clairement. Moi, je te dirais tout simplement, demande-leur à eux pourquoi ils au été. Nous faisons le Ben bi je leur demande leur pourquoi ñu woo dans ce que le président de la république a voulu et que vous n'avez pas exécuté demandez leur que nous. gis na sax ñu. non jox la élément de réponse bo xamné jox nañ certainement donc ñu bari nak euh, mais la réalité c'est que. mais mais comment ku melni la lan ngay expliquer situation parce que y yéen a à APR. mais euh, je l'ai appelé comme tout le monde. Taxa aussi il retient il soutient te nga ci cas peut-être que ñi ils ont un agenda local d'accord waaw te bii nii <laughs> te <laughs> bii nii euh. euh. euh, xam nga man nag j'aime pas le mélange des agendas. d'accord aduna il faut pas aller plus vite que la musique. d'accord mais monsieur le maire il faut juste. Ah je je finis je finis par une chose. oui Les les sangs de dégg ñu ne ñoom victoire bi. ah oui mais En ah, commençant ngeen ko xëcc ko. non xëcc ko ma kenn yéen xëccoo ngeen ci dem bi commencé xëcc ko victoire bi xëcc ko ma kenn lenn rek laa mën a wax bu on a perdu ñoom da daañu ne maire bi la d'accord nga ci. <laughs> léegi nag lu sotti am borom. jërëjëf léegi peut-être. Euh, mais nga baal ma hein. alors situation bi nga xam ne jamono bii dafa délétère est-ce que tey wala bon sax yow nee nga parce que favorable na si yow surtout parce que am nga ñetti yoon yoo xam ne sénégalais yi bari ñu di mooy dañu voté pour Macky Sall da ngay da ngay aspirer waat euh, briguer le un nouveau mandat comme ce président pour euh, deux mille deux mille lan décembre deux mille dix-neuf c'est ça. waaw foofu lañ ko pousse yokkaat nañ seen mandat yi da ngay da ngay briguer waat. nous sommes en train de faire un travail extraordinaire à Barni. Euh, un travail de repositionnement de Barni par rapport à ce qui se passe. Et croyez-moi, et ça, je le dis aux Barnois, on comprend ce qui se passe à Barni par rapport à la dynamique départementale. Est-ce que dafa tax da Même même question je leur dis les yeux dans les yeux. je connais ces problématiques. je sais ce qui va se passer, Inch'Allah, bien sûr, dans les années à venir, parce qu'on connaît ces problématiques. D'accord. Barni est au cœur des enjeux de développement du Sénégal de demain. D'accord. Ça, moi, je le dis et je défie quiconque de me dire le contraire avec des éléments factuels. Wahouma sensationnel. sensationnel. Ça, je le dis sur la foi d'une analyse précise d'une dynamique des villes nouvelles en Angleterre, en France et même en Afrique et même en Afrique sur les problématiques sur lesquelles par exemple Abidjan à Abidjan ou même la la la où j'ai eu aussi à travailler ces problématiques on les connaît partant de là c'est mhm. mhm. une mission Oui. mener le la continuité à bon port on est une équipe oui on est une équipe oui une équipe waaw maa ngi ciy ñëw boo ma déglul. non c'est que c'est que li ma dama jeexal man dama fi nekk damay cof ci temps bi te yi ma li ma lay laaj ñi daf ma amal solo. il y a des questions qui nécessitent une réponse contextualisée. oui donc mais mais xam nga. xam nga xaw nga ko xaw nga ko démarrer par là. xaw nga ko ëmb li ma xam mooy. non loolu laay jeexal li ma xam mooy. Mhm. équipe bi fi nekk tey. oui yéene naa ko Bargny. Mhm. pour ñu continuer mission bi nga xam ni ñu ngi ko doon def. oui je n'ai aucune difficulté aucune difficulté et de manière très sérieuse à poursuivre mon travail. Tout ceci appartient aux Barnois en temps voulu. Ils choisiront. D'accord. Euh, ce n'est que que directeur de cabinet qui euh, est euh, ministre de la pêche Il dara ci sa gestion mairie bi de temps di nga am jot pour combiner ñaar yi est-ce qu'après, après voilà donc on nekk koo xam ce ce mbi sa ci nguur gi day dalay le sa ci mairie vous savez. calendrier. surtout je suis à la pêche. Bargny c'est la pêche. waaw waron nañu war war nañ ci mën gis suñu bop normalement. donc faut me poser des questions yo xamné peut-être. Euh, non dama lay laaj ah, est-ce que est-ce que dérangé wu la voilà monsieur le maire yow tam mbokk yi rafetlu seen and ak radio Jokko FM suñu gan tay ci seen émission bi nga xamné mom mo moo doon euh, jàkkaarloo politique doon dalal monsieur le maire gay Abou Ahmed Seck maa lay gërëm di la sant ci wuyse bi ak la euh, tontu bi nga doon tontu ci ci laaj yi. ben man maa ngi leen di gërëm de chaque fois dama koy wax parce que quand on parle de décentralisation de déconcentration, c'est pas pareil, euh, qu'il y ait des médias qui accompagnent cette déconcentration et cette décentralisation des am solo li may ñaan kañ moy ngeen am. ah digg digg digg woon ngeen fi aussi euh, maison de la femme mais gis naa ni ñu koy defar xamna naa fàtte ngeen ñu. non pas du tout ñu koy defaraat. ñu koy defaraat bu ñu paree te loolu aussi si yéen la. si si suñu yéene la parce que il faut qu'on aide davantage. kan moo koy defaraat yéen en tant que mère ñun la waaw. D'accord budget euh, maison de la femme. ci lan la ou quoi ci ban projet la bokk. Euh, moi le projet de réhabilitation du bâti scolaire. administratif et ah, sanitaire. D'accord. donc c'est un plan qui s'adduit. et non moi je pense qu'il faut davantage et je le souhaite y am moyens parce qu'il faut avoir les moyens d'aller faire des investigations. absolument pour tout simplement accompagner la décentralisation la tutoie et la déconcentration des activités de la région Dakar vers la périphérie. et moi, leen di gërëm vraiment di remercier di ci et d'y remercier les populations du département encore une fois sur euh, le choix porté sur la personne du président de la République. Di remercier, remercier spécialement, spécialement les populations de Bargny. Sur les 62 bureaux de vote, il n'y a pas l'ombre d'une espèce de discussion. Les Bargnois ont choisi de manière très claire. Mhm. En démocratie, vous savez, c'est bien d'être humble et de respecter les choix de ces cousin de ses parents. Alors, tax c'est pas une question de. pas non là je parlais à ceux qui euh, se permettent d'insulter euh, ou d'avoir de gros mots sur le choix des barnuans. Hmm. Euh, moi j'ai pour habitude de respecter les gens je me nourris. Hein, dans le respect des gens je n'oserais jamais dire que ni les 56 de sont ceci ou cela non je me poserai la question est-ce que moi est-ce que moi hmm. j'ai convaincu il hmm. devrait peut-être certains devraient se poser la question de savoir hmm. est-ce qu'ils ont réussi à convaincre des fois aussi si on ne réussit pas à convaincre c'est parce qu'on n'a pas d'argument moi je félicite les Bargnois je le remercie. 78% de taux de participation, c'est exceptionnel. Et d'avoir porté leur choix sur celui qui a fait le quai de pêche, sur celui qui a fait le pôle urbain, sur celui qui va faire le port mais eh dans mais des eh conditions maîtrisées Bidor, et celui Bidor, euh, qui est en train tout voilà, simplement monsieur, le maire euh, Gaye Abou Ahmed Seck koy promouvoir l'émergence du Sénégal boo ko déglukat yi rafetlu nañu lool seen ànd ak euh, Jokko FM ci taaxirlu bigen ngeen ñu taaxirlu xam naa sax xaabaabal nañu ndax tardé ba ñu tardé woon di leen jox dig daje incha dimanche ak benen invité ci sen émission jàkkaarloo politique Moussa Pouy dekkoon ci waxukaay bi Assane Diour moo féete won ci xarala gi jërë ngeen jëf ba dimanche incha allah Ninale.